ci ay kàddu ni mu ko daan baaxoo def ci bis boo xam ni dañ daan def bu ñuy def tafsirul quran bi ak yu demee noonu Habib si bu fa nekkee dañ koy jox kàddu mu saafonte ak mbooloo mi maanaam monsieur le ministre d'État auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi yëkkati kàddu di am mbégte ci bés bi nga xam ne dañ koo jagalee di ko ñaanal suñu xarit di ko ñaanal suñu wóllëre Alaaji Sidi Lamine Niass di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yërëm ko yàlla ko yàlla xaare aljanna yëgën na kowe bi may ñëw fii foogu ne danaa jël kàddu dama xaw a retard de tuuti sax maa ngi jéggalu waa ne li wala yi wax fekkee muccut Sidi yàlla mooy boole yàlla moo ñu boole rawatina bi nga xamee ne dama nekkoon directeur de cabinet président lay Wade mu ne ma bés ministre d'État maa ngi lay wax da ne yow ak ministre d'État maître Madické Niang yéen yéenay sama bunt ci président Abdoulaye Wade xam nga loolu kóolite dugg na ñuy jëflante lépp loo xam ne bëgg na ko wax président mu jaarale ko ci man mais ba léegi man Sidy dafa nekk mystère ci man li muy wax il est incompris pour moi c'est un mystère lu tax ma ne Sidy mystère la mooy li ñu nekk yépp man mësuma gis siidi mu ñëw wax li nga xam ne intérêt boppam la yàlla rekk tax may wax lu mu mës wax jëmale ko ci pouvoir ci président de la république yàlla seede ne ne askan wi rekk la ma daan jox ma di ko jottali mais ce qui extraordinaire c'est que comme moom toujours mi ngi ci côté askan wi Sidi mën na la combattre combat bu rëy xare bu rëy ba nga yaakaar ne àddina day tukki mais li nga nekk nekk xaritam lépp mu nekk askan wi di la combattre yow mii xaritam Sidi a cette faculté extraordinaire que seen xaritoo ak seen coloré du ko dagg mukk Et je me toujours posé la question de savoir lan lay mën a réussire lu toll noonu kooku nit ko yàlla defar rek moo ko mën dama doon bind am ñu may bind ba si foofu may posé wu question si Lamine Niass j'ai donné une réponse mais peut-être que ce n'est pas la réponse totale mais une de ses forces ci ma gis mooy dafa dafa dajale ay culture yu bari d'abord Sidi fondement mooy la culture islamique ñépp xam nañ ko te xam nga ku wéeru ci lislaam fi nga weeru moo gën a dëgër yépp parce que yaa ngi weeru ci yàlla Sidi mu boole ci culture arabe parce que am na origine arabe jàng na fa xam na fa siidi boole ci culture sénégalaise cest xam Sénégal ba mu jeex xam Jolof xam Bawol xam Kajoor xam Siin xam Saalum et cetera et enfin mu boole ci la culture occidentale man awma loolu kii amu keneen amu ko moom la ko yàlla defal et c'était une de ses grandes forces. Et ce qui m'a le plus marqué d'ailleurs, moi, un jour, mu ñëw sama bureau ndeysaan tamit ñuy xeex de xeex bu metti sax mais du dëgg du dagg mukk amitié ak kóllëre mu ne ma sëñ Habib loolu ma na la wax mu ne ma maa ngi jege si at yi nga xam ne yonent bi amoon na ko génn àdduna 63 ans mu ne ma nekk na ci sama xel yii yëpp daal ma bàyyi ko puus xale yi daldi finir consacré sama àdduna ci lislaam rek parce que fi yonent bi tolloon maa ngi fi waaj a tolloo te effectivement soriwu ko à l'âge de 68 ans la ko suñu borom jël kon moom sóoraale woon na lii nga xam ne moo daal ci moom te ñu di ko ñaanal di ñaanal njabootam maître Cheikh yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla dëggal sa taxawaay bég nañu lool parce que ñun sa waajur lañu bu fekkee ne Oustaz Assane wax na lu mel nii ci yow n'est-ce sama benn baay moo ma daan wax ne doom seen bàyyi dañ daan am benn man fukk ngeen am fukk du ngeen man benn ma ne ko lu tax mu ne ma ndaxte yéen a leen ëpp wërsëg wante bàyyee leen gën a barkel mais mel na la yow loolu dalu la oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu di féliciter tous les journalistes de groupe Walfadjri jàmbaar ngeen mujjeewu leen puso bi mu réer te mënoon na nasaxaay waane li wolof yi wax kóllëre gannaaw lay féete yéen matale ngeen ko kon yàlla na leen yàlla fay sëriñ aadi di teg sa loxo nuyoo ci kilifa gu mag xalifa ak këru nit diine yi fi nekk yépp parce que ku la tudd tudd na Touba ku la tudd tudd na Tiwaawan ku la tudd tudd na Njaaseen parce que yow synthèse u lislaam nga di nuyu monsieur l'ambassadeur de Palestine mes collègues ministres et responsables politiques ci sont là di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.